Hindi, bukom ako. Bulan mo ko ako. Bukom ako. Bukom ako. Bukom ako. Ah, La ilaha ah, illallah. La ilaha ah, illallah. La ilaha illallah. Okay. Adi. La ilaha illallah. Eh. Wow. Adi. Uy. Hmm. Uy, Bye, bye. Muhammad. mënuma wax mënuma wax ci Muhammad way way maa ngi leen di sant di leen gërëm way way way ngeen bëgg ma wax leen sama doom la sama la xale la xale la sama doom la xale la Muhammad amul sama doomu xol la sama doom la xale la déedéet sama doomu rakk la mais man maa ko man maa ko jar li muy am trois ans lañ ma ko yaayam la ma ko yaayam jox mm-hmm. mu nekk ak man mm-hmm. waaw moo mu nekk ak man mais voilà waaw mm-hmm. dérépanu la yore woon depuis mu nekkee xale waaw moo ko yóbbu waaw waaw waaw waaw wallaay daan na suivre ndax papam docteur la waaw daan na ko suivre mais ndogali yàlla loolu la yàlla bëgg waxtoom moo jot mm-hmm. bu waxtoom jotee kenn mënu si dara mm-hmm. lay dem mm-hmm. sant yàlla ngeen ñaanal ko ñëpp ñaanal ko jéggalul Mohamed sama doom la bëgg ma rek dafa ma bëggoon dafa ma bëgg yaayam dafa toog ma toog mu ne yaayam santal ma sama yaay ji nga gërëm ko wallaay azim mu ne yaayam taa Sadio maa ngi koy sant di ko gërëm barke Seydina Mohamed maa ngi koy sant di ko gërëm ne ko na ma jéggal wallahi azim li mu mujjee dafa ne dafa dafa julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def salaatul fatiha wallahi azim man ko Mouhamed boobu mu ngi hôpital man ko Mouhamed looy def nii mu ne ma damay ñaan ñaanal ñëpp dama ñëpp baal ax baal naa ñëpp ax foofu la yem koy ñaanal yàlla yal yàlla yërëm ko aaree ko àjjana si waaw loolu laa koy ñaanal waaw Mouhamed ah la am le vingt trois ans waaw mais man moom mu ngi mel ni ñaari at la am ci man waaw dëgg fa yàlla mu ngi mel ko am ñaari at ci man waaw di ñaanal yàlla rek am na yàlla mottali ndaw àjjana si waaw am na yàlla mottali ndaw mosul bëgg lu ma su xamee ni mer naa rek day génn wallaay ma ko yor ñetti at la am ñetti at la am baax ku yaru ku jullite mokkal alquran waaw mokkal alquran ku jullite wallaay asi waaye yàlla baax na déedéet déedéet bi muy a été votre position daf ma ko wax ma nangu parce que xam naa ne euh, euh, du dem du fa def lu ñaaw parce que xamu ko dëgg yàlla dafa ñëw tàgguma ma ne ko amul problème mu dem defi ko te boobu ba léegi mosuma dégg mu def ci dara lu ñaaw bu muy dem dama ko xelal mais macha allah li ma ko wax moom la def li ma ko wax moom la def ba ni mu demee nii dégguma ci mu def benn kii mu am ci waaw dégguma ci mu def ci dara lu bon fa yàlla Mouhamed dafa dafa woo yaayam ne waxal eh, taa Sadio man may tanta Sadio mhm. na ma baal ak baal naa ko ak julli si yenent bi sallallahu alayhi mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen mhm. dégg nga mu jàng tari salaatul fatiha wallahi azim man ko Muhammad lan ngay looy wax ni looy def nii mu ne ma na ma ñëpp baal ak baal naa ñëpp ak addina amul solo mhm. moo ma wax de addina amul solo fa la ñu mujjee ne ma tan Sadio une heure une heure et demie eh, jot ma ne ko lan la woon mu ne ma une heure et demie sama kee sama belle la ma ne ko une heure pour lan lu tax ngay mu ne heure boobu la ñuy génn dañuy julli tisbaar rek mu dem waaye yàlla baax waaw dérépano la amee woon dérépano yàgg na ci moom yàgg na souffrir mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi leen di masoo bu baax a leen koy jaale yéen tamit leen koy jaale dëgg fa yàlla waaw gërëm naa leen sant naa leen waa Mbariw di maa ngi leen di sant di leen gërëm dëgg yàlla ba léegi aw ma lu ma lu ma naqari te musuma dégg dara loo xamante ne def na ko si ñaaw tey li fi ñëw wallaay moom daf ma bett sax bettuma sax ndax xam naa mu xam ne man xam naa sama doom xam naa ko fii ci koñ bi mhm. xamoon naa ne lii bi ma nekkee hôpital mu gaañoo xamoon naa ne su ma ñëwee ci koñ bi lii laa fi fekk waaw waaw dama ñëw fii waa koñ bi dajale mhm. xaalis bu bëri teg oto ñu lañ koy yóbbu loolu ah, mhm. lañ koy dajale waa kër papam waaw ñu koy ñaanal yàlla mm. yal na yàlla yërëm ko aaree ko àjjana ci àjjanay si sama doom la sama doomu xol daf ma bëgg waaw man tamit dama ko bëgg mm-hmm. barke Seydina Muhammad dama ko bëgg Muhammad bu ñaanal ko ndax dama ko bëgg man man naa ko bëgg sama bopp booy booy fàttaliku yan moment yi kër fii lii moo fi am dëgg yàlla ñun ñëpp kafre mm-hmm. lañu xam amuñu benn problème mm-hmm. fii boo fi ñëwee doo xam kuy mag mm-hmm. fii si kër gi fii boo fi ñëwee doo xam kii yaay la doo xam kii papa la waa kay doo xam kii yaay la kii man noonu laa mel waaw jërëjëf ñu ngi leen di kay jërëjëf waa kay jërëjëf ñu leen di masoo bu baax na dem na de xale bu yaru xale bu teey xale bu jullite xale boo xamante du wax ak nit di siggi xool la kon ba muy nekk xale bu ndaw ñoo dëkk Casamance laa nekk ba ngay sey ci waxaam te ma gisee statut laa tiit moo woote ñu ne ma dëgg la am na dem noonu laa duggee oto ñëw fii bilaay xale bi dafa nekk xale boo xamante ne mënu leen wax lépp ci moom bilaay wallaay yaru na jullite na teey na maandu waaw bilaay doo wax ma moom ba mu sigg xool day sëgg rek su ma ko ne amet wakaam laa dëkk doo ma fekk mu ne ma dinaa ko ñëw Mama Kaja Mama Kaja dinaa ko ñëw ñun ay dëkkandoor lañ Casamance mais dafa mel ni ci famille bi laa bokk waaw ndax seen kër presque lañu fooyee defee suñu lépp ba ñu màgg mais Mouhamed daal li ma leen di wax ci moom lu ne xeeb naa ko xale bi daal yal na xippee aljana wóor na ma ne xale bi mu ngi aljana non yëguma ko man tey laa xëy rek jël sama téléphone di xool rek ma gis ben xalé dugal ko statut def rip mané lan lii li du dégg ma daal jël sama téléphone wo ñaari magami, yi ñu jotuma len ma woté waat kenn ki ma jot ko man ko gis dégg la ñu ma lolo am di dégg la de am dem am na dem la mu ne ma non la jógee jël sama sac rek wo sama borom kër ne ko ah, man de am naa sama doom mag moo génn àdduna mu ne ma dem non la ci nit nañu waaye yàlla bu soxlaa ñëpp ay ñàkk laay massa waay massa àdduna moom li ñoo ànd met bett nañu met bett nañu ànd àdduna

carte bi ñu mujjee échangé dama ko ne moo moo xam ne ci série bi new newoo leen yow jàngoo ba nga nekk intellectuel muy dee loolu rek mooy sama kàddu maa moom li ma koy gëj a gis loolu laa ko mu ne ma dafay dem Casamance te ñëw su ma ñëwee maa waaye xale bu baax la loolu laa xam c'est pas parce que maa ko moo tax mais xale bu baax la xale bu yaru la bu dégg dégg nga olof su ma la nee xale bu dégg rek xam nga luy xale bu moo ñoo la mel waaw leen di masaw ñu tam jaale di leen ñaanal yàlla fi ngeen jëm yàlla fa yu yàlla ji parce que taxawu ngeen ko def ngeen li ngeen war a def loolu moo tax ma ne boo amee doom mu bokk ci aar julatoo ko Sénégal yi a ko jur surtout nag rawatina ku mel ni moom ñëpp ay bëgg a nekk ay mbokkam waaw jërë